asalaamaaleykum patriote yi mag ngi leen ziar bu baax den bege ci Badio Camara la bëgg ñëk jité après ma ñëw ci affaire bi nane naan ay euh, moy investiture présence nan Sonko bi ñu interdit ak ay affaireu euh, xawma 1 2 rek ñu ni la. nabi Vision. ay ay xawma lan état raison d'état ak ak ak Tafa Diop maire Louga ministre maa ngi ñëw ci mom aussi ta tayé ci mom Badio Camara la bëgg ñëw ci benn question mu xam ko xam nga conseil constitutionnel président de la république bu ñu ko faree sax seen kanam lay taxaw juré ça veut dire yéen yéen sut lépp lu nekk Sénégal yéen yéen ay magistrat Khalifa Sall dan kaa daanoon fa ngeen jafandu ni dan laa daan daan bee ngi nii Khalifa Karim Wade dan kaa daanoon justice ngeen génn jàppal bàyyi président Ousmane Sonko yéen ay magistrat comme yéen bu nekk Ziguinchor Sabassy Faye moo ko seetal ba mu set wicc ni na dugg ci liste électorale yi jox leen ko fi de am ñu ni deetawaay tribunal grand instance bu Dakar joom xawma la joom xawma la tudd magistrat boobu comme yéen seetal ko ba ni compte mag dara amul la nekk ci si jox leen ko fi am ak lépp ba mu leer nañ administration nga xamante ay ay surga lañu ni duñ ko appliquer def naan nag yéen conseil constitutionnel du ay surga moo leen di diriger yéen du ay surga moo leen di manquer respect yene justice yene loi lu ngeen décider nit mën na ka kaas wax bay bëgg a demee rek ay appliqué. wax leen ma ban décision ngeen tek ci ko Ousmane Sonko bu négatif mu kaas wax lu ne mais téw appliquer nañ ko ça veut dire Badio Camara say morom magistrat ñom ñoo wax xamna nak tay du yow yaay ñëw di leen démentir wala naan leen dédé li ngeen wax amul. di naan affaire parrainage dana jallam du jall man gëwuma sax ngay naan ay parrainage bi dok accepter dañ te administration bi ñoko baña a jox fiche justice ordonné administration bañ te yeen yeen justice ngeen yeen magistrat Nabi Vision li gaay di lam lamé sax mané li doomu aadama sañu ko sax nan ay duma jox Ousmane Sonko duñu accepter tay ay parrainage ndax amul fiche non non je ne pense pas lenen te yeneen di yëpp amna na ko neuf pièces amna ko nak indi justice ni justice moy dogal ci dëkk ba faw doomu Cheikh Cheikh Mohammed bu Cheikh Mohammed Ben Zayed El El El El Sultan El Nahyan Zayed bin Sultan El Nahyan mooy cheikhu émirat arabe uni di cheikhu Abu Dhabi benn doomam dafa génn école mos naa ko wax ñu laaj ko ba ngay génn lan lan la gën a jàngal nga génn xam ne lii nga war a maîtriser dans ta vie mu ni liñ li ma wax li li ñu gën a wax dañu ni dëkk boo bëgg a xool si c'est un pays fort il faut regarder sa justice ndax am na justice bu forte ju dëkk bu am justice bu forte rek dëkk boo bàyyi un pays très fort basta loolu la wax noppi suñu justice lan lan lan moo koy fooral justice Sabassy Faye Ziguinchor Dakar joxe décision ñu bañ cour suprême yéen a war a sauver justice bi yéen war na justice mooy toggal ci dëkk du président de la république du politicien yi falaa yam ak nag maa ngi avancé ñu ñëw ci un deux ñu ni raison d' état raison d' xam raison d' état maanaam ab koñ bu ñuy def manifestation nga ñëw ni peut-être day am ay infiltre infiltré bu loolu la préfet bi fen soit renseignement généraux yooyu fen wala préfet bay fen il faut oser dire wala ministre ba ko woo mooy fen bu dee renseignements généraux yi il ment c' est des bu nekkee nag ministre ba la ak préfet bi c' est des menteurs man naa man ma nekkoon ministre de l' intérieur man ñu ni day am ay infiltré yu ñëw xaw ma lan dama naan c' est le bon moment soldats yëpp laa wax ñu préparé wu pare renseignements généraux yi ñëpp ñu aay ñu ne laa ah, de pas pas pas pas yi ñenn ñi def civilu yëpp dem rax ci manifestation bi xool ñenn ñoo leen yarax bandi bu leen tax jàppal bàyyi ñu jàpp ñëpp yóbbu ndax malfaiteurs yooyu la ñuy wër pour jàpp yow nga ni malfaiteur day ñew duma ko organiser ndax malfaiteur day ñew yow kay bëggo japp malfaiteur yi bo leen bëggon japp kay di nga leen iri ñu ñew nga japp leen lool moy état bu fort mais état bu faible moy daw ñen ban malfaiteur sax fiy ñew lan lan lan ngeen mësa autoriser lu xamanteni Sonko bok na ci ngeen gis sax benn bouteille benn bouteille buy traîner parce que vous êtes des menteurs des peureux. nabi Vision. sénégalais yi nara ñew wandi wan leen diw lan bëgg a fal moo leen di traumatiser da ngeen di dof Macky Sall kon day xam vous n'êtes même pas et vous êtes là pour dire raison d'état un état peureux ragal vous n'êtes même pas honte 113 écoles établissement yu un mur Bob, Anna état bi raison d'état 513 écoles écoles yu amul mur clôture loolu raison d'état moom ngeen waroon lijjanti sept de écoles yu lampe électricité loolu mooy raison d'état rapport OFNAC IG euh, IGF Mame bay Niang 36 milliards la du sax 29 ay 94 milliards ay 600 milliards yek même ali nguy ñay pétrole ba mu jaxat jaxate ak ak yeneen rapport ya fa ne yeb lool moy raison d'état lool ngeen waron loxati tek ko ni na genn c'est l'argent de l'état lool moy raison d'état mais ab koñ koñ quartier ngeen di non mëno leen ko sécuriser yeen Sénégal mëno leen ko rek yeen ak saga nday sax suñu homme de tenue vous même pas honte préfet day laaj général Moussa Fall du moy taxaw nan dëkk bi dara du fi xew territoire Sénégal bi yépp la wax ñun ñu wax leen rek ci benn koñ koñ koñ lañuy def investiture ngeen ni non mën nañu sécuriser pays mais mënu sécuriser koñ lamb bu amé kérok Ama Baldé Modou Lô 1600 ggn 2000 policiers ngeen ni mëno leen sécuriser koñ day am ay infiltré yéen état dafa ragal infiltré état mo ragal infiltré ba paré ni état ngeen non wi gi fois li ngeen di wax sax xamoo len ko ban infiltré dara amu fi dara da ngeen na fen a fen a fen ba jël sen fen def ko dëgg gëm ni dafa am infiltré dara newul Sénégal sénégalais yi a lu ñoo togaat japp sen ñambur c'est honte ma ñoo ci Tafa Diop maire Louga wa Louga la bëgg waxal fi kéro waxna ko waa Mbàkke tey Louga la wax sama mbokk Louga yi ta sama papa Louga la juddoo Nabi Vision. Walu ga ngir yalla wa rasuli Tafa kafal wax len ma lan la def ga lan lan ni len ma li la def ga li Dakar lay tok ba ben moment jot mu jël khalisu nguur gi ñew dajale jeune yeeg ñep xam na ni dekk bi dafa metti nit ñi dañoo son ku farag yow ñàkk farag yow ñëppay màbbu ñew mu jox jigen ñi jox boy demb mairie ba ba CM ba gu metta fam wa bobu ana trouble à l'ordre public kana amul ana ñi naan dañuy bañ investir bi Dakar te bu Dakar yu na dara na won am kam enjoy fetu ñibi même Tafa job demu toj na luga rayante gu metti ndax ñibi wat Amazon yi mom da leen iri Dakar jox leen xaalis bala ñu dem vie privée duma ci dugg leneen la def jox leen ñu delu saa yu ñëw woo leen ñu organiser ko mu ñëw maire yi jox leen xaalis delluwaat moom daal mooy politique yu yàgg yi yàgg yi xaar mu ñëw jox leen xaalis dem defarul dara Louga Louga wax leen ma lan la leen tafa Tine defal mu ñëw mel ne da leen di fowe waa Louga jël leen seen responsabilité vous êtes des jeunes comme moi bañ leen téye leen seen carte préparé leen ko président Ousmane Sonko Louga dafa war a changer Louga ni mu mel Louga war a nekk dëkk boo xam ne dëkk bi dëkk de réfé région de référence ay politiciens ñëw leen foye bu ñëwee jël xaalis séddale leen daw toog ba xolam seddaat ñëwaat mel na ku yor ay fowukaayam benn gétu bëyam ngeen baal ma ba yéen laay wax mel ni rek kenn ku yor gétu xaram bu ma ñëwee jox leen lekk ñu daw ñoom ñëpp njëkkante après ma dem sama yoon saa ma gisee rek daw ñëw loolu loolu la ñuy bañ buñ ko nangooti gars yi Tapha Diop est un crétin un salaud baaxul jagut santu yàlla mel na ku yor ay kaayam bu nee Dakar nguutaandaat foofu ba doyal woo ñenn ñu ñëw mu nguutaandaat jox leen xaalis bu toogee ba benn durée ñëw Louga ni xaaral ma dem yëng yëngalaat af gém bi boo leen génnee xaalis ak ñoom ñëpp daw xale ak mag ñëpp parce que nit ñi danoo soxla xaalis bi dëkk bi moo metti te ñoom ñoo def noonu système bi pour nit ñi di sonn bu ñu am pour ñoom saa yu ñëwee génnee tudd ñëpp daw topp leen hypocrite dëgg lañu te ñun danoo bëgg ñëpp amandoo li Sonko wax li ñëpp li li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu mooy slogan wu Pastef raison d'état bi nag maa ngi ñëwaat ci ñoom dégg raison d'état raison d'état ay nit yuy lekk ceebu jën di lekk maafe di dem douche di tëdd seen soxna di dem ñooñu ñoo toog ci ay institution représenté état ay nit njaay lañu comme yéen yow mi toog nit ñu lay naan état nga impressionné yaakaar ay jinne ay malaaka lañu ay nit njaay fa toog suba dañ fiy jug ñeneen toog yéen ñi may waxal nii ngeen may xool suba mën ngeen fa toog mu leen sax yëngal waa toog di bu ñu bëggee bañ dara rek naan raison d'état raison d'état dara amul Sénégal jàmm ak salaama fi am lépp normal ay band la nu te ñoom ñooy band yi bañ fee jóge basta Naby Vision. gars yi maa ngi jégalu bu baax loolu laa leen wax tey merci.